tey jii lan la affaire nga euh, xam ne euh, waaw xam nga euh, APR dafa nekk ci Kébémer dafa nekk ci loxoy PDS ci njuumte waaye du ci du ci leneen. parce que ñoo ñoo waaw noo gagné xam nga di dem nga ci làmb fekk ku daanu sax mu bari bari bépp faxasalu daanu. waaye gay nan daan gay nan ko ndax loolu la ñu wax. noom boo xoolee ci wàllu euh, li fi nekk ci ay communes la leen noom ñeent doon am xuma ñetti commune bariwul te APR am la ci nekk yëpp moo ko jël ci wàllu euh, raw na nu nañu ay voix Darou Moussi ëppale nañu voix Kébémer gañe jeex na tàkk waaye euh, loolu xam nañ ko te nun xam na lu tax nu perte te ñoom seen ndam googu nangul nañ leen ko parce que ndam jaar ci yoon la waaye lu ci am solo mooy nun ginnaaw bon nangoo ni xam nun lii moo tax nu perte ñoo ngi defarwaat su suñu ñëw dinañ xam ne ñii ñëw nii bokk la ñu fi newoon daaw donc noo ngi wu te organisation bi ci loxoy jeunes yi la war a commencé ndax nooy ndawu parti bi tey jii parti bi bu doon garab da naan reen yi mooy ndaw yi tey ñoo ngi koy gën a suuxataat ñoom nu d'accord organisé wu tey jii suñu réunion bi nekk nii lépp loo xam ne gox la ci biir département de Kébémer gone yëpp ñoo doon toog waxtaan xam ne fii lañu war a jaar di leen ci jàppale ànd ci ñoom liggéey la def nag ci téere bi lañ koy dise waaye duñ ko wax te dinañ ko jàng ca ginnaaw ba bañ ci amee ndam ba pare ndax mun noo jëm ci xare naan gànnaay yi leen yore waaye noonu nan xam ne ñun jóg nañu ndaw yi jóg nañu muy mag muy ndaw pour mën a fexe ba président de la république ci lépp loo xam ne jublu na ko ci wàllu xëccoo fii ci département de Kébémer ñu teg suñu loxo. mais am ngeen ay problème quand problème du ñàkk loolu mooy àdduna. waaye lu bëri ci nit ñi bu ñuy xool parti politique lu mel ni ay APR danaan APR organisé wul ndax dañuy xool ni yeneen parti dañoo am koo xam dafa leen jiite ci département am ku leen jiite ci région parti yooyu dañoo am cosaanu yore nguur cosaanu administration mooy département day am préfet arrondissement am sous-préfet région am gouverneur loolu gestion administrative bu parti la mais ñun gestion politique la ñuy def te politique mooy ñi nga xam ni mooy ñi nekk ci suuf électeurs yi sànq am nañ suñu benn ndaw soo xam ne ci bu wax ni am camion boo xam ni ay borom xam-xam noo ci ne am camion boo xam ni ay ñoo xam ne dañoo tàggalikook seenu xel yor a carte ko gën donc ñun li ñu amal solo mooy dem ci nit ñi te nit ñi ñi leen gën a jege ci structuration bi nga xam ne Macky Sall président de def na ko muy acte de la décentralisation mooy commune commune bu nekk nag ndaw yi doon organisé wu ay responsable yi xam nit ña fa nekk nu la jënteeg ba ëllëg ci biir bu ndajalee commune yooyu loolay waral département de Kébémer nu gañe ko. voilà ci wàllu war yaram bëgg xam nga Kébémer euh, bu la nee fii mooy dëkku président Ablaye Wade fukki at ak ñaar ñu wax la dëkk bii am na ñaari ministre de la santé yu fi newoon ba pare la dëkk yi ba léegi centre de santé lañ yore maanaam barki dem la jógee ci dispensaire yokk tuuti dem centre de santé te Sénégal gi jàpp nañ ni dégg nañ ni hôpital bi gën a jekk ci Sénégal ma nga ca Kédougou ca àll ba lu naan nii ne Fèja te suñu goro def ko fa te nun fii mën nu ko am xam nga ni mooy problème am na loolu moo lay wan ni nun waa Kébémer jóg jot na pour nu soppi sunu askan soppi sunu nekkin te hôpital bi nga xam ne nun soxlawoon ko Kébémer dafa nekk loo xam ne lu kemeer war mën a jariñoo ak Sénégalais yëpp ndax amul benn dëkk boo xam ne da nga dem fii ci réew mi nga bëgg a dem ak fu mu mënti doon ba Mauritanie da ngay jaar Kébémer boo jógee bëgg dem Touba ak feneen da ngay jaar Kébémer même maay naan sax boo bëggee jéggi géej gi sax dem états da ngay jaar Kébémer donc Kébémer war naa mën a nekk dëkk boo xam ni lépp loo xam ci jumtukaay la ci wàllu faj ak wér-gu-yaram mu mata fi ba nun ñu mën cee jariñoo ba askan yi nga xam te noo wër gox bi ak yeneen réew yi mën cee am njariñ nan ngeen di waajal élection 2017 wala nun nooy ngi waajal élection bépp boo xam ne sunu mbër dugg na ci